Hmm. la ay <laughs> ah, gaynde gaynde jàmbaar la de gaynde jàmbaar la de sëñ Muntaxa jàmbaar la ah. jàmbaar la waaye sëñ Muntaxa jàmbaar la ñaari jàmbaar nag mën nañoo daje gaynde jàmbaar la mun Muntaxa jàmbaar la ndax fi mu nekk lu ne fekk na ko fa lu ne wax nañ ko ko waaye mu sëgg ci li mu sëgg rek sëñ Tuubaa rek sëñ Touba rek ni loolu lay liggéey moo tax gaynde buñ ko yóbbulee gaynde gaynde fekk na gaynde ah gaynde gaynde fekk na gaynde waaw jeex na. waaye ñoom dañu xam nga Sénégal nag itam xam nga Sénégal jigéen nga waaye xam nga Sénégal xam nga Sénégal Sénégal moom lu lu lu lu ne la ñuy wax waaye daal ka jël gaynde ga yóbbul ko sëñ Mountakha xam na ne ki ma li ma yóbbu xam naa li ma yóbbu gaynde laay yóbbul gaynde mu dolli njàmbaaram mu jeex man noonu laa gisee te noonu laa gisee waaw gaynde lay yóbbul gay wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqawul usdu fi ajamiha tajimi képp ku yonent bi di sa wéeruwaay ngay yaakaar ko boo dajee gaynde ci àll day daw gaynde gi dalay daw bu séeréer ko wax Muhammadu bu séeréer ko wax bu séeréer xam ngeen ko bu séeréer moo wax loolu nee na képp ku daje gaynde ci àll ti nga sa wiiru waaye di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la gaynde gi si day wiir daw kon kay eh, ko ñëbul gaynde dara nekk dara nekku ci nañ koy rafetlu ti bañ di ñaawal xam nga nag ñaawal gi dafa ëpp rafetlu gi daal moo gën ñaawal gi bu dee lu ñëw daal ñu ne ëska yi moo dàq waaye lu ñëw ñu ne accam baaxul ti ko gis muy ñaawal nag a ah, ñaari de eh, rafetul de moom rafetul de ah baax na Touba surtout liggéey bi nga xamante sëñ bi teg kuñ ci rey kay sa digga mat rek sa digga Faal bi daal luñ ko mën a reyee digga mu mat yàlla moo yor xam nga yéen da di fàtte yàlla mm. yàlla mooy moo moom jaami mooy rey jaami ku nekk ak bis ba ngay dee bis boobu bu jotee da ngay dem bàyyi faal boobu bis boobu jotoon muntu munu ko rëcc mukk mukk mukk mukk mukk bis boobu day dem waaw waaye bu bu ci naruloon na dee du dee kon nag yàlla moom mi ñu bind moo ñu wuutal dat wuutal ñu dele xam ngeen ñaata at ngeen am hmm? yéen ñëpp xam ngeen ñaata ngeen am xam ngeen xam nga ñaata at leen dese. d'accord <laughs> day am seetal loolu. xam nga ñaata at nga am mais xamoo ñaata at la dese xamoo ñaata weer la dese xamoo ñaata fan la dese xamoo ñaata minute la dese waaw yàlla bu ñu ko xamaloon kon kon kenn du lekk kon ñëppay sonn waaye yàlla dañoo nëbb loolu xamal ñu kañ lañu ñu xamal ñaata at lañu am nëbbu ñu ñaata at lañu ñu dese voilà. police mën naa régler dëkk Baye Fall mën naa régler dëkk ku ne mën naa régler dëkk waaw parce que police léegi-léegi ñu dugg ci loo xam ni mu tëleen ticc Baye Fall yi ñëw régler ko waaw mën naa nekk léegi-léegi Baye Fall dugg ci mbir mu tëleen ticc police ñëw régler ko ndax ragal ga waaw loolu rek la ku mën a régler rek waaw parce que Touba da ngeen di fàttali ne Touba titre foncier bu Serigne Touba Touba titre foncier bu Serigne Touba la du dara dëkku jàmbur la su ko neexee police du fa ni Baye Fall la fay ni su fa Baye Fall nekkee rek la seen dëkk waaye bu fa bu leen neexee nag bàyyi fa bàyyi fa police yi ñuy régler baax na voilà. nga ne. te muy am màkk ak madina <laughs> waaw te muy am màkk di am madina gis nga jëf yooyu li bon mooy fésal ko ba ñëpp xam ko ñu ni ah dëkk bu mel ni màkka di lii rafetu fi da ko mel ni madina lii la mais mu nga fa waaw mu nga fa parce que dëkk ba la muy rëy rëy ay saay saay a nga fa waaw Madina la muy rëy rëy ak la muy baax baax ni nga ko fonkee yow ba naan ak dëkk bu mel ni Touba xam nga yow doo doo fa def lu bon lool yow mi naan dëkk bu mel ni Touba waaye dëkk ku naan waaye la rek comme dëkk yi koo koy koo lu ko neex def lu ko neex def ki naan Madina comme ma dëkk la rek Màkka comme Màkka dëkk la rek kooku lu ko neex def waaye yow mi yow mi dégg def naa man lu bon Màkk baa def naa ko ma gën a i Iran kooku Iran day fontu dëkk bu toll ni Màkk su ma ko gisee woon noonu du ma ko def noonu lu ma ko def waaye kii itam bu gisee woon nit euh, tuubaa dëkk bu màggee noonu la kon du kon ko def nañ leen def nag noonu la génne leen waaw nañ leen génne ci biti kay bañ a génne dañuy dugg ci kër ga génne caga jaag wuyu yaag bandi yaag yëpp dañ leen di génne. waaw way parce que dañuy raxas boo raxasee mu set bu setul it ñu ci ñu bët danañ nëbbatu. illa yow nga dégg may la kuy njaalo dañ lay dóor téeméer yar boo amul jëkkër soo amee jëkkër ñu rey la jabar boo amul bu dee góor la bu amee jabar bu njaaloo dañ koy rey bu amul jabar dañ koy doo téeméer yar loolu na ah. mais buñ ci toppee nag danañ ko bàyyi waaye buñ ne rek gannaaw àttewuñu ko nu ñuy def dañuy dañuy dañuy jéem a xam ñu ñu yedd leen jéem a xam ñu ñu jëlee leen ci loolu jéem a xam ñu euh, euh, aar leen parce que loolu moo gën waaye buñ ne buñ ne buñ ne gannaaw àttewuñu leen rek buñ leen àttewul ba ñu dee yàlla àttale ku àtte kuñ àttewul ba nga dee yàlla àttale yàlla moom mu ngi fi moom dane àtte leen àttewuñu mu ne baax na ba ngeen ñëw bu ngeen ñëwee ma àtte leen de téeméeri yar moom danaa leen ko dóor te yar yar yar bu dee dee da dee ndax dee mel ni dee dootuñ ko dee ku xas dekki dootoo dee dañ la teg nag lu mel ni dee ci métti métti lu mel ni dee ci métti lañ lay teg dóor la ay yar bu dee dañ lay dóor bu dee dañ lay jaman ñu jaman yàlla bu la àttee pare moo xam na. <laughs> yow mii de yow mii daal saa eh, baax na baax na de. boppam lay waxal de. alors gars nga foofa yàllaa koy aar masjidul aqsa na mu màggee yàlla koy aar jullit duñ ko aar yéefee duñ ko nangu yàlla fa denc ay yonentam moo koy aaral boppam. ñoom lañ fa bëgg du fa am gis nga bu leen julli bàyyi woon duñ ko jël masjidul aqsa la fa war a nekk mun dana fa nekk waaw la fa war a nekk dana fa nekk kenn mënu ci dara lu fa war ta nekk du fa nekk yàlla lum newul wa ma tashaa'una illa an sha lee neex du am li ma neexay am kon looloo neex yàlla wa ma tashaa'una illa an sha allah rabbul alamina man maa moom jaami li neex du am li ma neexay am kon kay jeex na looloo neex yàlla yàlla na ko yàlla jeexal si dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam